ko kenn nettali vidéo bi nag mooy invitation wu ñëpp ba booba. 24 25 26 septième édition. voilà Tëngéej. di waajal festival bu mag nag. waaw fële fële ca ca ca ca ca Tëngéej incha allah. di le 24 lay commencé juin xam naa da ngeen ko waaj dañ leen. incha allah

maa ngi invité askanu Sénégal yëpp ñu ñëw ci événement bu rëy boobu nga xam ne ñun ñoo ko moom suñu culture moo ko moom suñu jeunesse moo ko moom suñu femme ñoo ko moom muy keppaaru maam nga xam ne suñu xarit Ibrahima Mbaye Sopé moo ko initié mais ànd ci nag ak Sénégal yëpp rawatina mbokk artistes sami euh, ñoom ñëpp ñu ñëw daje Rufisque pendant trois jours le 24 le 25 ak le 26 juin. li mu trouvé ah gars la bonne dem calculer fête yi au Sénégal pas de ci mais je crois que bi ci dàq Tëngéej lay am mooy festivalu keppaaru maam muy Ibrahima Mbaye Sopé Moi moo dàq ci calculer naa calculer plus plus moins, bien, booboo ci le 24 le 25 le 26 festivalu keppaaru maam avec Ibrahim Mbaye Sopé waay nappoon naa lii départ mu am tabaarikàlla septième édition waaw waaw fee ca Tëngéej nag lay xewee tabaarikàlla ci lu am doole foo de kan moo koy def soppe Ibrahima Mbaye soppe ñu papa ji baaba baaba kaay kaay jëw euh, Ibrahima Mbaye soppe xam nga lan moo xew 24 25 26 maam pour acteur attribué diaspora, Kokohan, région, département. Et avez les acteurs culturels. Salam Sénégal salam Aduna, festival keppaaru Nawon Faon, le 24 juin le 25 juin et le 26 juin Moi, je yi nga xamante ne moom la pour def festival bu rëy bi festival bu mag bi ku caravane voiture Kuna mon ay spectacle yu nice ku mon dem ci prison bi fonté ak ñom jox leen ay trophée ak ay cadeau ku mon lu bax ku mon lak jën ku mon dajale artiste sénégalais yépp bés baa ngi dara du ngi invité ñépp ñi wo toute la population de Rufisque ñu ñëw téru gan ñi ñu ko daan défé di wo le maire de la ville monsieur Omar Cissé di wo les maires des communes Faté wuñu kenn di aussi le ministre de la culture di woo suñu partenaires yi nga xamanteni sa su nek ñun ñoo and ak ñom di le parrain officiel monsieur Youssou Ndour ministre d'État di le grand préfet de Dakar noonu la koy tuddee man Jacques Bauer di Diallo di woo volonté yi nga xamanteni biñu nekké di commencer ba tey ji ñu ngi accompagner dina am ay ateliers théâtre dina am ay prestations ay surprise sur surprise soirée de gala bi mberaay bi nek ci biir traditionnel yi veillée conte yi ah ko tardé di ko digalé ak théâtre Ce pays, artiste surtout artiste surtout C'est bés la bu leen ko kenn nettali vidéo bi nak moy invitation wu ñëpp ba booba mooy li ñu doon xaar pendant deux ans muy keppaaru maam fële ci Tëngéej artistes yi yëpp dañu fay teew Ibrahima Mbaye Sopé di ku amal donc 100 pour cent théâtre moo fa am na ñëpp ñëw venez nombreux ñu kaf fo ree dundu théâtre ndax nag kon nag lépp day théâtre rek dañu def lépp muy théâtre donc à ne pas rater le 24 le le 26 fële ci Tëngéej Rufisque la à ne pas rater festival international Keparu Maam le 24, 25, 26 à ne vous le faites pas raconter. keppaaru maam dellu si na ana ñi ko doon laaj deux ans d'absence Nous avons namoon ñu leen wax ni festival bi jàpp nañu date bi euh, fële ci Rufisque ko amal du 24 au 26 juin. képp koo xamante ne rek namm nga yu bees namm yoo xamante ne yàgg nañ ko togg ñëwal festival wu Keparou Maame euh, fële ca Rufisque di la ñuy wax Keparou Maame moo wooteeti Keparou Maame di festival bu mag bu nga xamante ne bii mu ngi baaxoo di am fële ci Rufisque ñëwati na nag euh, suñu doomu ndey suñu xarit initié ko muy soppee donc muy am le 24 25 26 juin. Ah, donc ñu ci woo ñëpp képp ku nga xamante ne bii cosaan ak aada ak lépp lu ne ci biir yi yittal na la rek ñu ngi la ci oo donc ah, waaw ñu nar ci teew soobe yàlla ak képp ku nga xamante ne bii ah, acteur culturel nga muy théâtre muy lépp vraiment donc on va soutenir cette initiative donc di ci woo ñëpp incha dina bëri ay surprise nag

aar ko Sénégal yëpp àdduna ñëw leen si awa ay te bu baaxee ñu dem de barki yonent bi ñi ñaay ba tëngeet ana kan la ñu uti tëngeet di dem te soppi mi nga xamante ne daa bëgg aar ko sopp ko lool ñun tamit ñu bëgg soppi sopp ko lool barki Serigne Saliou keppaaru maam daa lay wax nii de tëngeet. yow yëgoo lii si dëkk bi. waaye damaa yëg lu xew. festival bu mag bi keppaaru maam. waaw looy teg nii. di leen am tëngëj. waaw mu ñëwaat bu Ibrahima Mbaye soppe. waaw ma xam ko maa nga xam festival bu mag bi festival bee ñëwaat. looy wax nii. Uh-huh. kañ la loolu. du 24 au 26 maa ngi dem de jiitu naa la. keppaaru maam la ñuy waajal kañ la le 24 le 25 le 26 keppaaru maam nag boo ko déggee sa xel dafay dem ci suñuy maam moo xam ci waxin la moo xam ci doxin la moo xam ci jëfin la ah euh, le 24 le 25 le 26 di nga gis ay artiste comédien boo namoon rek di ko gis fii ci biir Tëngéej cercle Maurice Gueye macha allah neexul dina njëg ci watiir artiste yi day naa leen képp ku ci yoron sa auto dang koy garé ne lé yek ci watiiri ñu def ci sa xolal wër dinañ romb sañ ci ba dem dangu gendal fo xalaat ci tëngéej rek ma xam nga ne dinañ fa jaar gis maman say tay bu sañ ci ndata yalla xam ne am na lu xew dëgg muy lan fële ca tëngéej keppaaru maam le 24 le 25 le 26 man ndata yalla ma nga fay ma nga fa jël naa su ma génnee di wax ngeen war a xam ne ah événement bu mag am na lan mooy festival bi ñu ne festival keppaaru maam dëgg du neex nee naa leen ku bëgg a gis artiste ak artiste boo mënti bëgg a gis boo ñëwee foofu ca keppaaru maam la la le 25 ak le 26 di nga ko fa fekk incha allah sama gaay man Ardo alias Penda maa nga ca biir. saa yu ma génne def vidéo am na lu tax dañuy waaj festival keppaaru maam bu mag. boo xam ne li may wax lébu moom ma ci témoin ak Modou Pousse Pousse festival bi Ibrahima mbay Soppe moo ko taxawal ak waa këram ak ay xaritam ay soppeem ak ay élèves waaye soppe da ngaa fàtte ni festival bi ban koy taxawal man maa nga fa woon lii may wax bu dul dëgg yàlla tàkk ba jeex man ak lébu ak Modou Pousse Pousse ak ñeneen ak ñeneen dund nañ fa loo xamante ne festival bi duñ ko fàtte mu muy am nag ren le 24 juin le 25 jusqu'à le 26 mais li ci gën a neex mooy dañ ma koo tuddee taban li tax ñu tuddee ma ko dañ maa mës tëral ci suuf loolu nag fa laa yem ça veut tout dire kon nag na ñëpp ñëw artistes yeeg kilifa yi ñëpp man dinaa ànd man ak ñoom Youssou Ndour man ak délégation yi nekk waa Tëngéej ñun ñëpp ñu déplacé wu ñëpp ñi jóge Paris ñi jóge fële ñi ñëw takk spectacle ak kan ñun waa Keppaaru Maam laay wax festival Maam septième xam nga ni loolu du yomb de. Ah, du yomb de ataay yàmba bu ñu ñu luggee beer suukaree ko ko kaay. Eh. xale yi keppaaru maam yëngooti ku ma fa jiitu nee ma mas. lan ku ñu fay jiitu ñun si biim réew. le vingt quatre. vingt cinq. vingt six. muy xew. keppaaru maam la ñu li nga xam ne ak Ibrahima Mbaye Sopé ñëpp a ko doon xaar ñetti at la ñu toog xaw ma ñeenti at xaw ma defuñu keppaar ma relancement keppaar ma ren bi dana métti te bok ci Sénégal tëngëj la doxantu ma dégg fa yëngu dégg fa waxtaan dégg fa coow lu rëy ma laaj leen lu xew ñu ne ma ah dañuy waajal le 24 25 26 juin 2022 ma ne la waa ñetti fan jàmm ñetti fan yi lu xew ñu ne ma Ibrahima Mbaye Sopé suñu doom suñu doom bi ñu teral suñu doom bi ñu yëkkati suñu doom bi ñu delloo njukkal suñu doom bi ñu namoo moo woo waa àdduna ne leen le 24 25 26 juin fii ci tëngëj dina am ñetti fanu théâtre ànd ci ak waa keppaaru maam ànd ci ak ministre de la culture et de la communication communication monsieur Abdoulaye Diop ànd ci ak fondation Sococim ànd ci nag a ak waa ville de Rufisque waa ville de Rufisque mairie de Rufisque a waa Tëngéej seen doomu ngoog seen doomu woote day seen doom moo woo waa Ndakaaru woo waa Sénégal woo waa àddina waaye Ibrahima Mbaye soppe nee na bu keroogee nag ree bi neex na loolu dañuy jàng ndax dina am formation de jeu d'acteur dina am atelier de théâtre dina am table ronde dina am conférence waaye tamit dina am un grand spectacle ñu ne Ibrahima Mbaye soppe ndax fa lay yem mu am na ñoo xam ne kenn waru fàtte mooy suñu mbokk yi nga xam ne caabi da leen féetee ginnaaw fële ci maison d'arrêt et de correction bu tëngee dinañu leen seeti yóbbul leen ndimbal ma nag waa Ibrahima Mbaye soppe ndax mbir yi fa lay yem mu ne ma déedéet Pathé Sène mbir yi yemul foofu de ndax woo naa waa Canada woo naa waa France woo naa waa Burkina woo naa waa Guinée woo képp koo xam ne ci àddina bi rek bëgg nga théâtre di ko safoo di ko ndamoo di ko dund di ko dundal rek association yi troupe théâtrale yi arcos yi waajal leen nañu daje ñun ñëpp ah Ibrahima Mbaye soppe bàq nga njaag Ibrahima Mbaye Sopé njaagu comédien nga bàkk Ibrahima Mbaye Sopé bi nga ko mën a am crédit dina mel ni vampire bu le 24 25 et 26 juin 2022 Tëngéej mooy la capitale du théâtre mondial